sama Samagal TV mbokk internet yi Samagal TV mi ngi fii tey ci Linguère luuma Linguère lañ nekk nag ànd ak yéen war a dem ci Cap Tabaski ba léegi ci point de vente de mouton yi ñu ngi fii ci Linguère dama dama bëgg ànd ak yéen ñu xool euh, luuma bi nu mu demee xool prix xar yi waxtaan ak gars tuuti ñu ànd nag ak seen euh, tey ñu ngi am benn sponsor bu naan Grand Moulin de Dakar ci jarga bi xam ngeen dañ ko war boole ci li ngeen di xoddee seen xar yi kon ñu dugg xool éleveurs yi ñu waxtaan ak ñoom jërëjëf Eh, xamana ki ma një eh, gis mom xar yar la yor de gannaaw na nga def. wa? fi sa wa terminal la. Euh, Pam Ndiaye. Pam Ndiaye fo dekk man la dekk li ngeer xar bi kañ ko euh, yar depuis kañ. xar bi ta warna am ay 9 mois japp 10 dal ah kon ko jëndon ci momuy ko jëndon ko way lo koy jaay wa bi dal suma amé 250 dama koy jaay. Hmm. Euh, waaw. instant bi ñaan nga dégg wu. instant bi ma ngi dégg ay 180 190 daal waaw. mais loolu jar na ko mën nga koo jaay de. ah waaw mais <laughs> xar bi dafa xoolal xar bi itam. léegi boo déggee 200 la ko jaay. waaw non ma déggoon 225 moom daa ah. ah, xam nga rek xar yi liñ ciy def moo tax. xam xar boo yar ba ba mu toll na la fare nga ci lu dul jeex. waaw mënoo ko amaat ci xar bi sax mais nag koy jaay rek pour récupérer waat xaalis bi. waaw loolu. kon baax yow benn xar rek bii nga yar wala nga yar. am na yu may yoroon mais dama leen a jaay quoi bi moo D'accord, merci. maaleykum maaleykum salaam waaw ba léegi ñu ngi ci dara ma lingeer mm. euh, ñu ngi jàkkaarloog beneen kilifa sëñ bi na nga def ma ne noo tudd salaamaaleykum man Daay Ba laa tudd foo dëkk man maa ngi dëkk fi ñu wax ah. Gorée Gorée Gorée Gorée fii sow gi diggante fi ak carngi euh, yaa ni xar yi waaw xar bi maa leen indi maa leen di jaay mm. bii ñu ngi ci def fanweer ak ñaar bii ñu ngi ci def ñaar fukk ak juróom ñaar 135 nga ko jëndee yow maa ngi ko jëlee waaw. kon instant bi ah défendre défendre nga kon lu ñu mën a gis foofu mooy xar yombul ah xar yi am na qualité yi nga xam am na ñi xam ne nag xaw na tane tuuti waaye am na ñi nga xam ne moom macha allah moom yombul. mais yow teefaan ke nga da ngay jënd di jaayaat. noo gisee euh, ren ak daaw ban moo tane. ah xaw na sori nag. xaw naa hmm, xaw na méngoo nag. na méngoo. Hmm, hmm. Oh. waaye xar yi mag yi moom. Oh. moom am nañu baat wax dëgg moom fu mu ne nii macha allah baax na. kon xar yu mag yi euh, ñoo mais yi ma gis dafa xam euh, xar yu ndaw yi réyu noonu mais prix yi dafa cher moom a jaaxal. waaw xam xar xar boo fekkee dafa suur. Hmm. moom piram du du du suufee day kowee rek waaw loolu la. xar bi nga xam ne dañ ko borom dafa xonte ba mu ba mu fees xam nga du ko jaay prix bi nga xam ne bu baaxut di ko jaay piri bu baax rek xam nga xonte bi moo tax voilà loolu la mais yaakaar nga ni fii ak tabaski bi xar dana bari dana bari li ma gis kay hmm. bu wàññiwut dana bari moom incha allah hmm. yow mosoo dem Dakar jaay. no bés naa fa dem benn yoon waaye géej naa. géej na fa hmm, géej wax dëgg yàlla moom Dakar moom géej naa fa lool. yow daal bëgg daal. fii daal ak Daara. fii ak Daara waaw luuma Daara moom dimanche. waaw dimanche la. yaa ngi koy waaj. wallaahi incha allah jërëjëf. fii ci Linguère ci luuma bi tey nag ñu ñëw waxtaan ak eh, ñi nga xam ne ñëw fi indi xar yi ñu jëm tabaski bi ci dafa gën a def. sant yàlla bu baax. tur bi nan la. man Demba Sow. wallaahi maa ngi dëkk Daara ñëw ci Linguère ah, dëkk Aly Ngouille Ndiaye waaw tey ñaata. Mm-hmm. tey ñaata xar nga fi indi. naa fi quatre-vingt-dix xar. quatre-vingt-dix waaw quatre-vingt-dix jëlee ko ko Daara. jëlee ko Daara jëlee ko Daara indi ko Linguère. Euh, kañ nga ñëw kañ nga kañ nga déparé Daara. Daara maa fa déparé tey ci suba ay sept heures yooyu. Euh. waaw. yow ça veut dire que oto ngeen di jël quoi. waaw waaw oto lañu waaw oto lañu jël fay ñëw. wàcc xar yi. di toog xaar yàlla. waaw xaar yi. ak ñiy jënd waaw. Euh, tey noonu gisee euh, situation tabaski bi situation tabaski bi ni ma ko gisee mooy ni ah alhamdulilah rabil alamin am nañ yaakaar ne xar yi bëri nañ ah, am nañ yaakaar it aussi ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad di ñaan yàlla yàlla yokk nguur gi ndax euh, premier ministre bi bu njëkk a joxe moom moom moom la jox Samba Ndiobène Ka kooku suñu nit la suñu wëlëre la. ñu lépp la ku ñu bëgg la ku ñu am yaakaar ci àdduna la am nañ yaakaar moom aussi ci Jolof deuxièmement mu ñëw jox ko Ali Salah yaa ngi dégg ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ñëpp ñun waa Daara lañ waa Jolof lañu ñu ñoo bokk Jolof ñoo bokk réew mi ñoo bokk lépp ñu ñoo bokk de ñoo bokk baay waaw lépp lu fi yàlla def ma nguur gi indi ko fi nañ ko sante yàlla ñoom ñu ko bokk ñu bokk nguur gi nguur gi boole leen fi ñoom ñëpp ñu baax lañ waaw ñu ngi sant Aly Ngouille njaay ci moom lañ ko gisee te xale bu ndaw la ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad ñoom ñëpp ci nekk ci nguur gi yàlla na yàlla dëggal seen nguur yàlla jàppale leen yokkal leen képp koo xam ne ki ci yàlla may na ko mu ñëw fi wala mu toog ci réew mi yàlla na yàlla na mu gestu ñoom ñëpp ci barke Seydina Muhammad léegi nag euh, ci wàllu xar dañu am yaakaar ne xar yi tes am nañ ci yaakaar ndax xar yi bëri nañ waaye nag lépp loolu ñu ko xam yooyu yëpp lu ma la waxoon ci njëlbeen mooy ci yàlla la aaju mooy nit ki dañuy il faut faire rek ndax ñu ñooy jox Gàmbi Gàmbi ñoo koy jox Tabaski loolu moo tax faire rek lay mën a nekk du mën a nekk ci leneen. waaw waaye nii nag moom am nañ yaakaar dañu des am nañ yaakaar daal li fi nekk moom mën na toll senegal waaw loolu moom am nañ ci yaakaar. dafa noo xaru ren ñoo gën a suur yu daaw waaw xaru ren gën a suur yu daaw yi xam nga daaw ak daaw jéeg yëpp dafa tombanteeg heure bii bu toom bu jotee pëli day taw ñax du am léegi ñoom mënuñoo jëli seen xar boo gisee boo déggee mankaay yëpp mankaay du dara du man du du manqué xar dañu nekk seen liggéey ñu ngi yor seen xar ñu war a jaay waaye mënuñu leen a jaay wàcc seen alal wàcc seen nag di dem Dakar di jaayee seen i xar mu yàqu seen gannaaw ñu yëkkatee di tëral. xam nga kooku mënoo cee jël xar nga ko yóbbu Dakar di ko jaay loolu moo yoon ñaan manka manka waaye manka warut am Sénégal ndax li fi nekk sax mën naa taw Sénégal waaw li fi nekk mën naa taw Sénégal waaw alhamdulilah kon euh, ñu ñu ñu loolu euh, instant bi yow sa xar yi ma gis nii ci yan prix lay varié xar yi nga gis nii ci euh, prix mi varié day pa dina varié ci ay quatre-vingt-dix quatre-vingt-cinq waaw am na quatre-vingt-dix am na quatre-vingt-cinq am na cent cinq am na cent waaw am na cent dix am na san vingt waaye nu wax dëgg yàlla beeg yëpp dafa beesew yëpp baax na ndax xale fi mu nekk nii moom macha allah alhamdulilah ñu ngi sant daal te ñun na li ñu gënal mooy ñu des ñun loolu moo ñu gënal bëgguñ mu manqué waaw xam nga lu tax lu tax loolu ñun ñu ñoo ñu ñoo ñaari ñaari at yëpp ñoo ko des. waaw ñoo des ñaari at yëpp. bëgguñ mu manqué. ndax ñun ñuy waa Jolof lañu. bëgguñ mu manqué. waaw ok merci beaucoup. ak les grands leen de Dakar sàmm leen ak xel mu daal. mbokk sama gaal ba léegi ñu ngi ci luuma Linguère bi kilifa gi na def. man Abou Ba la tudd. Ba. Abou Ba aywa. foo dëkk. man ci Linguère la dëkk. ci biir Linguère. Linguère. dama gis nga yor ñaari xaru yar. Euh, yow yoro coggal. yaa ko yar wala. waaw maa ko yor. foo ko yaree. bi ci ci ci Linguère laa ko yaree ah. ah. eh, waaw. mais ñaari xar yi mbaa seerul lu muy jar. seerul noonu ah, de saba bale deux cent la yem. la yem waaw. bii fanweer ak juróom. ah suma ah, amul deux cent trente bi mun naa ko wàññi tuuti. kon nag waaw bu bu deux cent yu tuuti. Hmm. waaw moom ko ah deux cent bi moom def kaw métti ci man. sab compte bi xam nga compte bi du compte caakaan. waaw loolu moo tax te li ma ko jëndoon tam ne dafa seeroon. waaw waaw. kon ma ko jëndee ñaata weer la ci yow. Ah, bi ah mois di. mais bii moom xanaa mën na jar fanweer. bii. fanweer bi de il faut ñu teg tuuti tuuti waaw. Ah, waaye rafet nañ daal. rafet na de yow doo yer yeneen xar ay coggal yu bari doon. Ah, waaw am na am nañ beneen coggal kay. mu si àll bi. waaw ah, ko bàyyi foofu. tey yéen ñaar la indi tey. ba nga ñëw ñaari rek nga indi woon. ah gisoon nañ ko jënd. waaw dañoo ñëwagul waaye yii moom. rafet na rafet am na xaalis bi am na ko jaay fanweer. ndi ngal capan joyi jeegom tati way ga capan tati capan nayyi ƴeew tan annda ko baaba an ɗon ko yafano en mbi ala denga hmm? yokka so yokki yaw mo jaali saabu yaw somo wayla mi boggana ñu jappalante kono so yokke mo jaali hmm. daal muna ko jaal déedéet muna jar fanweer kesde rafet na de rafet na moom kari kari bu baax la ak les grands moulins Dakar sàmm leen ak xel mu daal Brr. dal leen ci bergerie Khadim Rasoul nek ci mariste de Dakar téléphone 77 639 94 30 yéen ñi bëgg ay xar yu baax yéen ñi bëgg ay xaru ras, ay ladum pur sang excellent fi ci bergerie Khadim Rasoul jënd fi seen xari tabaski ci njëggu yomb ci njëggu xéewale Ñew leen ba gisal seen bop. Taw def nañu opération tabaski jaay lu ëpp 5000 moutons te ren bëgg nañu jaay 8000 japp 10000 moutons te ci xar yoyu mën nga ci am tabaski bu baax ci 150 mille bâtis 500 mille francs excellent à ak bergerie Seydina Mohamed mi bëgg yar ay mi ben adresse du Sénégal ay pur sang ci femelle jeune mâle wala mâle bu jaar yoon rek la soo bëggee la la ci yoon nga mën am ay yu téléphonel gaaw ci 76 488 54 wala 77 464 93 99 wala nga daagu ndànk ex segna garage clando ñu jox la ay xaru pur sang ay xaru original fii mooy bergerie Seydina Mohamed. ginnaaw seen liggéey bu rafet ci tabaski ak màggalu Touba ba xalif général kullu muxit gërëm leen moo tax ñëpp woolu leen ñi ñooy bergerie xaadim rasul xam ngeen ni tabaski gaa ngi ñëw te war ngeen am ay xar yu mat tabaski buñ ci jógee dugg ci màggal ñu jaay leen ay xar yi gën fii ci bergerie xaadim rasul loo am ci xaalis am xar nekk fii ci Dakar ci Mariste 2 téléphone 77 568 50 07 wala 77 639 94 30 bergerie xaadim rasul. ku yàgg ak ñoom xam ne dañu mën jur jege si leen ba xool te lépp di seen njariñ